ji dañoo am confiance ci Sénégal ak ci Macky Sall wax na ci train de vie bu Sénégal ak askan wi nañuy dundee moom Amadou Ba wax na tamit ci lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi waaye nag nee na loolee Macky Sall ci boppam moo yor cëggul gu yama constitution bi li mu wax leer na nul ne plus de deux mandats loolee waxi Amadou Ba la niki démb ci assemblée nationale ci lu jëm ci ñetteelu mandat bi ginnaaw bi ko gars yi sëkkatalee yéen a kaay gi 2016 yow bokkoon nga si ñi nga xam ne ñoo doon wax ne amul kenn koo xam ne mën naa def ñaari mandat yu tegaloo ci réew mi loole nag maanaam intellectuel nga da ngaa war a jàkkaarloo ak askanu Sénégal wax ci lu leer naññi yéen kaay gi di enquête nee na Amadou Ba li mu wax ci mbirum ñetteelu mandat bu Macky Sall bi amul lenn loo xam ne lu ci leer la journal bi nam ko tuddee mooy clair obscur yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi démb gaay yi wax nañu ko ci assemblée nationale ba seen xol sedd waaye assemblée démb bëri woon na folklore loola yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na Amadou Ba ba muy nga xam ne ñooy journaliste yi dañoo gànnaayoo woon li nga xam ne mooy ay yoo xam ne dañ see bind libéré Pape Alé Niang maanaam libéré Pape Alé Niang yi démb ci assemblée nationale mel ni tulleeg male député yi bokk ci ku jige sax démb dañoo jóg taxawa maanaam di jàppale taskatu xabaar yi am na ñaari journaliste yoo xam ne démb tegoon nañu leen a bàyyee ñi nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag daat nañuy annoncé li nga xam ne mooy ab de Libération yéen i kaay gi di Sud Quotidien Amadou Ba démb wax na ci lu jëm ci wàllu wér yaram gi ak taxawaay bi nga xam ne gouvernement bu Sénégal moom la ci amee ak lim ci fas yéene amee lu jëm ci wàllum njàng njàngale mi ak agriculture ak lu soxal wàllum sécurité yéen i kaay gi di enquête nee opposition bi wax ji nga xam ne Amadou Ba démb wax na ko ci Assemblée nationale amul lenn loo xam ne doy na leen ci moo tax nag ñoom nee nañu danañu déposé li nga xam ne mooy am motion de censure Guy Marius Sagna démb lu mu waxul Amadou Ba daf ko fàtte loo xam ne méngoowul ak Mamadou Lamine Diallo démb wax na Amadou Ba nee na ko nag bu fi ay nit faatoo ci lu jëm ci ñetteelu candidature Macky Sall yéen a te bu boobaa nag yéen a responsable a kaay gi ñu xëy fekk fa Abbas Fall nee na réew mii nga xam ne mooy Sénégal réew mi yàqu te Macky Sall ak ñi mu ñoo ko yàq ndax jamono ji amul kenn koo xam ne am na espoir am na yaakaar ci lu jëm ci wàllum yoon ci réew mi bi Abbas Fall nee na dëkk bii di ñàkku kaaraange ma ngi mel ni tuleeg male waaye nag bu loolee lépp jàllee Barthélémy Dias meerum Dakar nee na impunité bi nga xam ne moo am ci réew mi jéggi na dayoo maanaam ñi ànd ak lu leen neex def te dara du leen ci fekk Guy Marius Sagna nee na ko Amadou Ba 2024 di ngeen ci nii wala ci naa ndax askanu Sénégal jamono ji maanaam sonn ba mara day tali te yéen sax tubaab yi ngeen fi nekkal yéen a kaay gi di réew mi quotidien bàyyi mbir moomee wax ci mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr Seydina Omar Touré ñu naan ko capitaine Touré démb doyen ndax tey jii dina daal di déglu Baye Mbaye Niass ñu naan ko MC Niass waaye tamit bu fa jugee dina déglu ku ñu wax madame Tall madame Tall moom ay jamono moo nekkoon patronat bu Adji Sarr yéen kay gi di 24 heures docteur Souleymane Diagne dib économiste nee na Sénégal li mu amee ci ay bor jéggi na dayoo ndax Sénégal bor bi dañu ko multiplier par te Macky Sall moo ko multiplier par quatre maanaam bor bi jamono ji ma ngi ci fukk ak ñaari junni milliards maanaam douze mille milliards ci la borob Sénégal toll yéen gi di libération xëy di ñu xibaar naan ñu cour des génn nañu ab rapport boo xam ne rapport bu doy waar a doy waar la ci xaalis bi nga xam ne moom la ñu jagleeloon coronavirus bi maanaam fond Covid 19 bi rapport Cour des comptes génn na waaye nag wane na ay léexóora ay njublang yu doy war a doy war ay luubal ci alalu askan wi maanaam sàcc goo xam ne jéggi na dayoo surfacturation ak marché gré à gré goo xam ne ku ñu ko wax duñ ko gëm moo tax ñi nga xam na ñooy waa Cour des comptes ñoom nag jamono ji li nga ne moom la ñuy sàkko maanaam ñu ubbi information judiciaire surfacturation daat nañu koy nemmeeku ci ministère ñu dénk wàllum développement communautaire milliards lu toll ci ñaari milliards yu fekk juróom ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti milliards te ministère boobee jamono jooje Mansour Faye moo ko jiite woon waaye tamit ñi nga xam ne ñooy waa Cour des comptes sàkku nañu daaj bu ministère boobee di Aliou Sow ñu daal koy topp yéen kaay gi nee na bi ñu dénk wàllum commerce ci xaalis bi ñu jagleel loon coronavirus bi moom tim gis nañu ne def na ci ay surfacturation waaye du ministère boobee rek ndax ministère bi ñu dénk wàllum développement industriel ak ministère bi ñu dénk jigéen ñi ak ministère bi ñu dénk wàllum mine ak ministère bi ñu dénk wàllum communication ministère yi yëpp rapport cour des comptes bi épinglé na leen maanaam joxar bi na leen baaraamu tuuma ci ay luubal yoo xam ne njort nañu ne def nañu ko ci alalu askan wi yéen kaay gi nee na nag hôpital bu Kaffrine comptable ba kookee nag nee nañu dafa daal di sàcc lu toll si ñeen fukk ak juróomi million a yéen kaay gi di réew mi ko di ñu xëy fekk fa moo di ñanga nee na Macky Sall rey na of nag bi ma fa yóbbu ki nga xam ne mooy Bassirou Gueye mi fi nekkoon ay jamono procureur du Sénégal yéen kaay gi di la Réveil Quotidien naku nañu dellu garaawa rapport bi joxaat bi na baaraamu tuuma Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne jamono moo jiite woon ministère bi ñu dénk wàllum wér gi yaram ge ak Mansour Faye mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon ministère bi ñu dénk wàllum développement communautaire yéen kaay gi di Vox Populi xaalis bi nga xam ne moom la ñu jagle loon coronavirus bi maanaam marché gré à gré yi nga xam ne moo ci am na ko yàlla nëbb waaye tamit surfacturation yi nga xam ne nemmeeku nañ ko